Mambal nuyu naa la. waaw fay naa la. ci loone waaye sant yàlla bu baax baax. yàlla naa sañ see. xel mu dal rek. Ah. xel mu dal waaw. xel allah ñu ci kawam bu baax a baax. waaw wax dëgg yàlla ñuy entraîné bu baax. ñuy physique ñuy contact ñuy gant. ñuy wàcc ci terrain bi tamit di compétir si mbapat yi moo noonu. te loolu lépp boo koy def benn sant yi ak say xarit sama ami daa fan ak gars yi nekk diaspora bi Ousseynou ñoom Segay sama mbokk yi mbokk Saalum Saalum waa Touba ñëpp mooy loolu gars yi jàpp si xam nga dañuy jox xaalis boo xam ne mooy moom nga daan am ci làmb di ko def sa compte di la fayal saal ngay entraîné di la jox boo see boo mënti am di ko def parce que làmb benn saan yi bu sa xel dalul doon sa daal sa entraînement yi lépp lu war si man ñu ko def ba pare taxaw ak di waxaat waxtaan ak promoteur na ko boo la neexee nga jox Mame Balla combat nga jox ko set bolo ko biyee. bu la neexee nga jël ko ci jël ko ci avance am ñu delloo ko xaalis bi moo loolu kon alhamdulilah kon moo tax ma la xel mu dara rek. ñoom lu leen da waaw mais xam nga yàlla mooy bulaay doomu aadama aadama ak awa lañ si ku tedd gi ñu leen baax gërëm bu baax a baax ñu am fi seen site ñoo moom waa takk ñooy ñoo moom takk ndeer ay gars yu baax ànd ak sama ami d'enfance tamit ñoom Seege ñoom Seydou Diop gars yi di si jàpp doyum bu baax a baax instant bi toon wax dëgg yàlla suñ xel dal na ci lépp ñu ngi entraîné ñu ngi am xaalis ñu ngi koy teg ci yoon ñu ngi séedee ñu ngi toog suñu kër di xaar combat ñëw ñu bëree moo loolu. mais fi mu nii soo waree wax adversaire yu Mame Balla ña ñëw adversaire tamit buñ la gisee fi mu toll nii moom pare su may revanche Moussa Ndoye laay may revanche wax naa ko si démb amul combat. non mais moom fi mu toll nii moom si Sa Thiès la jógee nag Mame Balla Moussa moom du la jël. Moussa Ndoye si Sa Thiès la jógee Moussa Ndoye première défaite moo ko jox. ak humiliation du la daal la Moussa xanaa ñaan na bu dee ba nekk en mu ne maam Balla ñaari yoon lañ mais benn yoon la ma daan ma daw ko. daan da ko daan après am ay ci ci ay tolof tolof yoo nekk xam naa moom tamit mu dem. mais mais daan daan tolof la. maam Balla bii boo taxawoon bési di bëre. canal di ko wane TFM di ko wane. booy fi nekk yëpp maa ngi leen loolu yaa def na ko. ñu ne maam Balla borom percé ndax lan xeetu jël yu garaaw. damaa gëm yàlla moo tax ma entraîné waat bu ñëwaat mais sinon comme président dama damay découragé parce que man laa xam mais nag mais am na yeneen adversaire yoo xamante ni ñoo gën a taxaw ka ay Moussa Ndoye nañ waxtaan nag ci làmb lañ nekk moom Balla damay su ma dama ne su ma mbay revanche Moussa Ndoye la mujjë bu yof bu ñëwee ma may ko saas dugub moteur bi traversé bu ñëwee ma may ko saas barki démb def naa émission di ko wax maa leen ëpp coow làmb maa leen gën a toj ñi ma ngaa ji avance double moteur Modou Anta bu ñëwee moom ma jël ambulance bu Thiès ñu may woo waa Thiès di wax wow laay ko dem man la ñaari adversaire la fa muy ambulance bu Thiès ak Modou Anta ambulance bu Thiès damaa machine la am dem am dem daan ko Modou Anta damaa daan Moussa Ndoye Moussa Ndoye daan ko kon xanaa loolu neex na. ñaar ñu moo soxla moo gën a yore ay waxu laay ko waaw coow lamb ñu wër nañ ñëw. kon suñu toll daal pare nga pour may benn booy sens. waaye pare naa pour may booy prouver sens ñu ñëw mais ñi ma li ma la limoon. ñu laa gën a bëgg combat jàq combat damay entraîné dama am doole am pare sama xel dafa dal te boobu bëri moom ñëpp xam ne damaa mën a bëre lamb xel mu dal la koy def alhamdulilah allah yàlla ma yàlla may gudd fan mébét sama yére li ma am ak li may liggéey suñu borom yàlla ma fay sama ñàkk boobu ci arène bi incha allah jaajëf mais siyaar naa waaw mais delloo ziar monsieur Diop ndaanaan mag bi. vainqueur vainqueur vainqueur waaw mais loolu loolu làmb Papa nga ñëw séntu mu metti nga ñëw mu yom nga ñëw séntu mu yom nga ñëw mu metti loolu mooy lamb quoi ah di ko encouragé ndax moom champion daanaan la vraiment waaw. mais bu toll nii boo xoolee sa digganteeg booy yaa ngi leen di jeexal fan la sa xel nekk jamono ji. man ak Mañi Kayre wala Abu rek wala Macha waaw Mañi Kayre Abu Ndiasse wala Macha ku ma ci am baax na waaw. fi nga tànn diis de. la fi def lu ma deful. ndaanaan nga moom kenn warante wu ko mais fi nga taan diis. fi def lu ma deful te ñooñu ma la wax ñoo maa lay mën maa la ëpp doole dàq leen bëre barke yonent bi waaw moo waxul dëgg rek sama côté mais mi ngi commencé di wax dëgg nag ah parce que dëgg mooy mujj mooy njëkk mooy mujj waaw ah, lépp dina leer incha allah. kon booy daal nañ taxaw xaar yaa ngi ñëw. barke sëñ Fallou maa leen non instant bii moo loolu dama génne mer la Franc man wane gu ma dara. gisagoo ma ma bëre benn temps bi ni affaire yooyu na ay combat rapproché laay bëre waree ko ma dara waaw parce que ni ma doon jox lañ ma joxagul te comme ñooñu ay champion la ay derlen dama bëgg ñu jëflante làmb xam ma léegi. kontaan naa. waaw yow ñoo far yow di bëgg waa Pikine bu baax a baax